Ngouda salaamaaleykum Ndour Ndour ana Ngouda ah. Ngouda waaw waaw waay génnal fii waay kooku yow génnal fii waay sa waay ah yow waay sa waay yow la waxoon dama am ataaya bi waay man falaa teg suukar beeg warga geeg naanaa yeeg yëpp falaa leen ba ah. Ah, toog dafa jot ah wax nga de toog moom nekk ñu war a toog toog amul moom ah toog moom waruñu waaw gis nga moo tax nag fi mu ne nii faaw ñu dem num tuddati ji ah dama xamul kat nu ñuy def ah nit ñuy def xam nga ko waaw di démb ba ma tëddee gént naa lu garaaw hmm. mooy ñaari xar dama gént ñu am ñaari xar yu weex tal gàddu ko nag ay ngandi xar man moom bu ma gént du bu weex bu ñu tukk laa gént man moo dama téye ko nii xar bu ñuul laa war a am yow saa yi dinañ am xar hmm. voilà ah. <laughs> yaakaar ni yaay am bu ñuul mu am bu weex xam nga fi mu ne nii dafa dëgër këj dëkk bi dëgër na moom porte boo làmb bu dëgër këj dëgër na ndax man mataar bu si Espagne moo loon ma yónnee yaa yow xam nga lépp nu mu demee ñeenti weer ngi ni ñoom liggéeyuñu mënuñu yónnee kenn hmm? ala daa métti na na waar moom waaye gis nga gis nga ren ji ren ji ci ñëpp la métti borom kër yëpp ndax man mii di wax ak yow ñeenti weer ngi nii xëyuma gontu hmm. yow it mataar ma la doon yónnee mënul la loolu ñuy tuma lii fexe dem dem nan nan dem amul toogaay nan nan dem metti na dem rek metti na loolu moom daal lii wax ji mooy allez nga tilimal sa bopp nii rek am xar mu vert ak xar mu bëla na am est-ce que dinañ ko am ah bien sûr que oui et eh, miskini ma jamm ngeen eh iske est-ce nga ni ñu wowe hein miskin miskin nga wax waaw waxo faqir rek miskin miskin la leen wowe yow ya, nak gis nga yow ya ngi bëgg yeb nak, hein gis nga li nga wax bo ci delloowee waaw dina la yanu ba ci kaw dóor la ci suuf jël ñaari xeer japp sa doñ ji ne ko taj mu toj dégg nga li ma la duma sa morom la la fi sa morom neuf yow da nga tambali bañi xalé ba tay lo ëppale nit ki ko jaay ah xoolal fii waaw ñun dañoo faale gëstu fële ñun dañoo faale lii du ndam ñun dañoo faale lii li ngay def nii du ndam faale wun lii lii du ndam lii du ndam ndeysaan ñun amuñu waaye ñoo suñu ngor yow laa tuddee kii yow moom kee laa la tuddee kon xam nga ne tabaski am na dinaa jënd nag tuddee ko sa baay yow deewoo xam nga li sa problème deewoo Sambay Mbayaan Sambay Mbayaan Dumoy ko bu ko dumoy dumooyu ko dumooyu te sa waaj Omar oh, sama waajaa ngi nii mbay naan ngay doon te ndaanaan nga masa doon ndeysaan ajaratu nday ña ngay sa yaay sooy nooy sa baay ndeysaan Omar maa kontaan ci yow géwal du jaal dama ne géwal du am jal. ay waay kontaan ndax son bi daa war a génn ni nga mën a mel ak man ndeysaan wi ma saytaane la man sa xarum nag saytaane la musa doon sa xarum tabaski ah? maa ko yor. waay Omar di waay baal li ngay def. jox naa la xar mamas tuuti. yéen yéen. voilà Samba ngeen baal ma ngeen baal ma. te nag man uh-huh. samay xar. Uh-huh. ndoxu sewo la ñuy naan. oh maa la may naan ndox mi gars yi di wër a ngi nii. oyof na dem leen naan ndoxu robinet. set na sell na. yow ndox maa ngi noonu kooku mooy sewo. fumiste mënut weesu li ngay def. balaa maa dama doon am nu may defak ak yow. Uh-huh. ma loo ma may ma jël. yow lii lii lii. déggal lii. déggal déggal affaire bi yow gën nga ma rakkati. déggal déggal. daawul def ni eh, eh, bul bul ko wan bul ko wan ñanga moom bul ko wan bul ko wan yow gis nga yow saytaane nga mës a doon ah, def yow affaire bi gis la waaw li ngay def yëpp affaire fumiste la. parce que yéen bi kontaan naa ñu dem bu faale ñu dem. gis nga yow eh, wuyu ma nag koral. wuyu ma faale wul la. man am na retour. waaw am am yàlla yàllaay bur ñàkk yàlla yàllaay bur ñun faale wul la. mooy doon xar mi balaa ma la. waaye na nga xam ne tabaski du am. bu tabaski dana am nag. toomiraam yi ngeen doon. ñoo ngi yow ci koñ bi du neex. tabaski moom incha allah mari nga leen di yóbbu tëj rek lañ. ñii yéen commandant lañ leen di boole ñu tëj leen mbay bu sa xol ah? jeex bàyyi leen waaw ñii metti nañ sama xol bi ah. dama war a ñii xool eh, mën a bàyyi ñi. kaay kaay bàyyi maa ngi ñuy waay garaawul kaay ah yow ya, isa dégg nga bu baax lu mu wax dégg naa ko bu baax tuddi tuddee ñu xar yi daf ñuy téegal ren bu tabax si amee doo ma raam la man man man xoolal man jambar laa man gor laa garmi laa laa la wax da nga naan gor lañ waaw ay gor nañu gor lañ yow yow noonu man amna naa fexe comme que demee na nii ba demee nii ah am naa li ma xalaat de loo xalaat loolu moom billahi buñ ko defee waay waay gaawal ci li nga xalaat waaw defal naa rek man dama amul taxawaay billaahi su ma la ko waxee di nga ni ma mauvaise idée xam naa loolu man. gaawal ci li nga xalaat nguuda man damay dem kaay ma dee la. <laughs> waxal mauvaise idée wala. mauvaise idée kay lii baax na de <laughs> <laughs> wuy ma. mu waxoon vase yi vase yi. taj mi vase dañ dem rek. muy defal ni ma def nii. nan ngay def nii eh. waaw defal ni ma dem kër ga. encerclement woo xale yi ñu génn. encerclement fekk ma tali ba. yow kay dama rek yow. Aïssa bu ndaw Khady moo Aïssa bu ana Khady. génn ngeen mom bala ma be rek ngeen tijju fi rek ni mut mutay ala deggo len sama wote bi. xarum lan. xaar xanaa. waxuma len waxu xaar. ak nak sen sen papa rawan ba pare. ta sama nawle la. buguma bu yeb ma ben yon yéen deg legi nak dini genn dem defi ji mars mars la. mars manam grève li ni defi ji. waaw téyal yow yow teyal waaw papa lii lii mooy lan ni tabaski du am amul juma amul tabaski du am waaw loolu moom mënul nekk lu tax mënul ya hmm. ne dinañu déglu ma fii fu ne jàkk ji rab tëj ne juma yi rab tëj ah gàmmu yeeg yëpp ñu fomm wax leen ba tabaski nan lay mën a amee dina am du am nag su amulee yàlla ya dinañu alamaan nag yaa ngi dégg waaw waxuma leen loolu dama wax ak seen papa rawaan te bëgguma bu yab ma benn yoon nag moom nag mi ngi foofu si angle ba ak ay njabootam yow la ngeen di xaar li ngeen di dem simbi ngeen sol seen équipement yooyu ngeen topp ma gaawantu leen te ngeen fekk ma si biti munoo lan yow may ma nga may saf netatu ni naan ma ay munu ma ànd ak kii ak yooyu gaawantu leen te ngeen fekk ma si mbedd bi. tabaski ren du am lu ko waral Fara mi ngi fi tabaski du am lu ko waral Fara mi ngi fi tabaski du am lu ko waral tabaski ren du am lu ko waral Corona mi ngi fi tabaski ren du am lu ko waral Corona mi ngi fi tabaski ren du am lu ko waral Corona mi ngi fi tabaski ren du am tabaski ren du am lu ko waral Corona mi ngi fi tabaski ren du am ay Corona mi ngi fi tabaski ren du am Corona silence silence silence silence cathédrale silence ñu ñëw ci les choses sérieux waaw te muy dëgg waaw kay sam waa ji deg, dëgg la la ci ginnaaw dëgg du dëgg dëgg la te nag lii xew fii dañ koy wax te dee dëgg la ndax mënunoo nekk fii ci deuk bi mhm. am fi suñu bat ñu bëgg ñoo xañ suñu bat du dañ koy kaas ba mu leer waaw waaw makka amul juma amul juma amul dara amul Touba amul waaw Tiwaawan amul. gàmmu général amul yëpp éliminé nañ ko. waaw les mosquées fermées. les jàkk fermées les jàkk fermées. waaw tabaski il y a tabas nañ koy tëj kenn du tabas. am kenn du fi tabas ci nii wala ci naa. te sax te sax nii nii sax ñii. Hmm. booy bee du du du booy sa booy bi. booy bee. ana la ana. waaw <laughs> doomu yaa Louis. waaw yow. <laughs> warooge ci bu sante jaxaan bala neex dégg séeréer wax mala corona de way fi ay virus yeneen ni dul corona dinañ fi dug njaago njaago la la wax njaago ana ak jaay xar waaw moma ci si njaago ak jaay xar ah man da njaago ba jamono di neex mom njaago njaago njaago kay mbaam xuux la xam waaw kay mbaam xuux waye njaago buy jaay xar li moy tabaxi warul am xar me gis nga ni mi reey reey ne ne reey ni na reey na ni rek me gis nga dañ ko pomper Hmm. mooy xar yi ñuy pomp baaxul ñun daal fii bu fi kenn jógee yow xar yi baaxul eh, nañu taxaw wuy le ma eh, yéen leen fii eh, eh jóge leen fii eh bu leen booy jóge leen fii eh jóge leen fii booy xaar leen ma eh booy demal te ñëw yow booy bañ am fit da nga am fit ñun Gauloise blonde lan daan denin denin nan ñuy di def nii tat nang léegi la yamba am ku ku neex am fit ay jàmm ñoo ñëwal eh eh eh booy may ma ko man man dama la ko ñaan may ma ko. man du ma koy éliminer ci ay secondes. non fii bu fi poussé éliminé ci ay. Eh. Eh. waaw ndaw nga de. ah ndaw nga de. nguur kenn du yow. <laughs> yow na damay def su ma dawee rek lu ma daw daw lu ma gaaw gaaw rek bu ma gëstoo gis la ci sama wet un mètre. déet déet <laughs> daw nga nag. ah njaago la mais nag booy booy bi booy njaago bi il est méchant. Ah. njaago la xam nga ni. xëy xam du jeex. est xam nga ni li mu yor noonu. bu la ko dóoree day mel dañoo xar sa yaram bi rek dugal ci dugal ci dugal ci lu toll noonu. yow looloo rey masay. yo yooyu non courant la yap bi la japp dagati ko ñett fan bu dee. nga deug ci marché ba. marché ba marché ba. moo tax moom doon sour waaye du njaago bi de. nak amu fit nak. <laughs> yow amu fit nak. <laughs> yow ta nga tàggat ah? ba sa doomi ñoo tegg li yëpp ñoo ko wadal fi yëpp. defal dank ay mu ndaw mo yoron ka pa bee ay sa mu ndaw ko yoroon. mais ay bi badara la. badara badara gis na ba muy denk xadi xadi xadi mu ndaw ba muy denk ba ngoy denk mom mami de ñoo mom bi de. dedet. dedet defal dank rek ma wax la bul ma profité fit mom ci man la fekk bax ndax boy bi dama ko affronté dal ci kom bañ ne bañ nek tap tàpp la moom ni da nga laal njaaw dajante na ngi laaloo ko man amu lu may ragal leg nag li moy wan ni ñun ñu bayyi mauvaise idée naw kay mauvaise idée wax nga lu am solo lu am solo gis nga li mo gis nga li li li man li rek moo tax ma bëgg la ndax xamna ni sa yu ma jaxlé ya ma indul khalat khalat khalat bu rafet naa ni su ma la da nga naa mauvaise idée gis nga dama ko xamoon nii la nit booy ànd ak moom da nga koy defal ay mauvaise idée muy mën a avancé ñuy dem si kanam ah ñun koy moom léegi mm-hmm. loolu nañ ci gaaw mm-hmm. nañ dem léegi ut ku jàng ay sam ndaw mën na bind leeta non nañu bàyyi ñoom ñëpp nan ah, dem si booy yi booy kër koñ ba booy yi nekk université université ba noonu waaw ñooñu daal ñoo mën a bind bind waaw bind yu jub waaw waaw waaw booy toogaay nan dem amuñ problème nan dem man dem ba amul toogaay. waaye sonn naa nag. waay waay yow waay. boo demee nga dàmpalu rek jugal may la loxo. waaw moom noonu fay nañu gaañu rek nga dese. ah ah yii moom nan ko fi ba yii yii moom ah ah bàyyi ko fi ah.